wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw ba nu sante yàlla sunu borom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bii di xëytil gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar tolloog juróom-ñetti fan ci weer wi jëkk ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom-benn di leen ndokkeel ci bis bi di leen ci ziyaara bu baax a baax di sof sunu waxtaan wi ci waxtaan wi weesu te waxtaan woowo itam dañu ko sofoon ci waxtaan yoo xam ne sunuy bokk ñoo ko doon euh, jokkalante ak yéen luy rafetal diggante yi rawatina ak bokk ak lu koy yéwénal ndax su rafetee yéwén dañ cay am ngërëmul yàlla sunu boroom bi nga xam ni moo ko def te moo ko santaane waxoon nañ ca waxtaan wee weesu ne alquran indi na ko fu ne xadis andi na ko fu ne ku baax kii itam wax na ko fu ne ba tax muy loo xam ne kon lu mat a sonne la lu mata góor góorlu la te dara lu lu ko féete kaw dafa amul ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi am na bis Moustapha wax saxaaba yi ne leen ala adullukum ala afdala min darajati siyaami wa salaati wa sadaqati qaalu balaa leen tegtal duma leen wax loo xam ni moo gën daraja moo ëpp daraja julli moo ëpp daraja koor moo ëpp daraja joxe sa alal ci yoonu yàlla ñu ne ko aha kay lu mu lu mu jot lu mu jotee qaala islaahu daatil bayni mu ne defaru bokk moo gën yooyu ndax yooyu soo ko dee def te sa diggante ak say bokk rafetul sunu boroom du ca am soxla kon dangay ngay rafetal sa diggante ak say bokk mooy tax sag jaamu yàlla mën a yéwén fa yàlla mu teg ca ne fa inna islaaha zaatil bayni hiya alxaaliqa <coughs> laa aqulu taxliqu shaar walakin taxliqu diin mu ne bokk gu yàqu ni saatu di def kawar ci bopp noonu lay def diiney boroom da koy jële fa mu nekkoon saatu day fekk kawar ci bopp sax ci bopp mu jëlee ko fa waaye yàq sa bokk tam yàqoonte ak say bokk day fekk sa diine fa mu nekkoon mu jëlee ko fa ba dootoo am diine ba dangay ñàkk diine kon lépp loo xam ne moo gën a kawe julli gën a kawe koor gën a kawe joxe sa alal ci yoonu yàlla loola de lu kawe la <coughs> ngeen baal mu waxoon keroog nag ne soo bëggee defaroog say bokk dafa am yoon woo wooy jaar soo ca jaaree rek dana yomb jàppandi ba ca jiitu mooy dangay bàyyi xel ne soo ko dee def <coughs> yaa ngi am ngërëmal sunu borom soo ko dee jokk dangay ngay yéwénoo ak sa boroom yéwénoo ak say bokk te lépp loo xam day tax nga yéwénoo ak sa borom yéwénoo ak say bokk loolu mat naa sonne kon yow mi ami bokk <coughs> da sóoraale ne su ma ko rafetalee danaa am ngërëmal sama boroom waaye dana am ngërëmal samay bokk loolu nag la koy yombal mooy dangay ngay ëmb aw yiw ci sab xol di wax aw yiw ci sa làmmiñ di jëf aw yiw ci cër yi niyatul xayri wa qawlul xayri wa amalul xayri say bokk boo leen ëmbalee aw yiw di wax aw yiw ci ñoom di jëf aw yiw ci ñoom seen diggante dana rafet moom la ko baax ki naan inwi waqul wafaal wa laazim taslami kon say bokk ëmbal leen aw yiw waxal ci ñoom aw yiw jëfal ci ñoom aw yiw bokk na ci yiw woowee sàng sutura say bokk soo amee mbokk xam ci moom ab safaan bu ko toogee foo toog di ko fa toogee di ko waxtaane waaye danga koy sàng sutura te xam ne ku sàng sutura jaamu bi yàlla su ëllëgee sunu boroom sàng la sutura <coughs> moom la sëriñ bi naan wa kun li kulli ma yasurru muxfiya wa kullu maa yasuuhum wa kun li kulli maa li kulli wa kullu maa yasuuhum wa kullu maa yasurruhum kun mubdiya kon say bokk lépp loo xam ne aw yiw la lu rafet la luy sedd seen xol la dee ko feeñal dee ko waxtaane waaye lépp luy safaan di ñagasal naqari leen dee ko nëbb bokk na ci li ñuy dox rek bokk mooy di jéggale jéllale bañ a tooñ te bañ a fayu ndax kiy tooñ mëneesut a nekk ak moom waaye kiy fayu tam mëneesut a juboo ak moom kon dangay fexe ba doo tooñ waaye itam bul fayu fexe ba doo tooñ nag njàmbaar la ak njàmbaar la ngóora la waaye fexe ba doo fayu nag moo ëpp solo fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ak wala man sabara wa gafara inna dalika la min azmi umur bokk na ci li ñu rafetale ak bokk mooy kenn ku nekk nga def ko na ko yàlla def bu dee kilifa jox ko cëram def ko muy sa kilifa bu dee sa nawle nawloo ko bu dee ndaw bu dee ndaw tam na ko uuf na ko dimbale nanga ko yërëm na ko xool bët bi ko baayam di xool ak bët bët bi ko ndeyam di xool loolu la Moustapha doon wax naan naa naasa manazilahum kenn ku nekk na ko yàlla def nanga ko def noona ndaxte mag mi nga jox cër nga rawatina sa mbokk am nag njaboot te nit soo fonkee kilifa mu fonk la ndaw li ngay dimbale di ko yërëm su ëllëgee mooy doon mag li nga man moo koy man wala mu man lu ko raw fekk sa doole jeex fekk sa wàll wi su wolof naan baayo bu fàttali ko soxor mooy baayu bi nga xam ne kenn uufu ko kenn dimbaliwu ko waaye ki amul ndey wala amul baay wala muy ndaw rek <coughs> soo ko taxawoo dimbali ko jàppale ko da am ngërëmul yàlla te su ëllëgee mooy doon mag euh, kon mat naa bàyyi xel lool moo tax xadis ba waxoon ne ana wa kaafilul yatiimi fil jannati kahaatayni man Moustapha maag ki uuf ndaw lu amul ndey wala amul baay di ko saytu di ko jàppale maag moom su ëllëgee ca àjjana ja gën kawe ñooy dëkk kaxaatay ni ni ñaari baram yi dëkki muy assabaaba wal wusta mag jox ko cëram ndaw tam na ko uuf na ko yërëm waaye bokk na ci li ñuy jokke ak bokk tam dimbale ki nga xam ne yaa ko tane te yàlla rekk tax moo tax bu ñu delloo ca mbindi mag ña ñu gis sëriñ Moussa di wax borom Darou Salaam maam Cheikh ant naa ko teral nga say bokk teral aw jaambur ba ñépp jag nga jàpp nag sang jaambur kon lu baax li muy def def na ko ci ay bokkam def na ko ci jaambur ñi ba seen aajo faju ba noppi nag mu téye aw làmmiñam ndax def lu baaxit te saw làmmiñ du ci jóg sunu borom bëggul loola yaa ayyuha alladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum man ni wal ada bokk na ci kon li ñuy jokke ak bokkutam mooy sa mbokk da nga koy laaye biir lépp lu gën ci moom baax ci moom nga di ko ko wan di ko ko wax di ko ca dimbule waaye doo ko bàyyi rek am na ñoo xam ne feeg waxoo leen dara rek du ñu la wax dara saa boo leen waxee yitti nag ñu ne la man de damaa gis ngay dem ak dikk rek ak ay yéeg ak a wàcc waxoo ma dara ma it ma téye sama bopp ndax magum lëndëm boo ko dajul it mu daj boppam waaye gannaaw wax nga ma dara nag kon danaa seet nu may def déedéet bul nekk ku la wax dara koo gis koo wara a laaye biir laaye laaye ko biir ndax addiinu nasiha moom la sëñ bi naan kaza dalaalatu alal xayraati lahu li nusxin wa alal xaajaati kon bokk na ci li ñuy jokki ak bokk euh, di leen laaye biir waaye bokk na ci itam li ñuy jokke ak bokk ku toll ci samp kër nga sambal ko kër loolu kilifa yépp moom lañu daan def ba fii mu ne am na ñu koy def ndax ki nga taxaw ba mu samp kër defal nga ko njëkk loo xam ne euh, de su ko fàtte mukk ci àdduna bokk na ci li ñuy jokke ak bokk it tudde ko doom boo gisee borom pàkk bi ak njabootam noonu rek lañu doxe tudde seeni bokk euh, njaboot gi leen yàlla jox loolu day fóot ay xol day jubale ay mbokk bokk na ci li ñuy jokke ak bokkit yóbbu nit penku mu joxe po mu joxe ponk bu lislaam yóbbu nit penku mu joxe ponk bu lislaam boobu muy aj màkk gis ngeen kilifa gu mag yi Cheikh Sidil Muxtaar euh, coono bi mu ci toggoo at mu jot di yóbbu mbooloo te kilifa ya ko jiitu itam noonu rek lañ ko daan defee euh, bokk bokk na ci itam li ñuy jokke ak bokk nit ku wéradi nga jàpp ca ba mu faju ba wér xam ngeen ne sëriñ Abdul Qadir yàlla na ko sunu borom loolu ay leer te taas nu ci barkeem ku ci ràññi ko woon la ku mosaa ñëw wax ko yitte man na la ne demal ba ëllëg wala ginnaaw ëllëg waaye nag ordonnance moom du ko néegee ëllëg foo ko ko waxee rek jox ko ko mun a ñaata la tax na sax ndaw ndaa yi dañ daan wut aw kayit wu ñu bind tubaab rek ñëw ne ko li ordonnance la te da koy daal saafara da koy daal di toppatoo ak yu nag yeneen ak yeneen teraanga teraanga yi ñuy séq loolu tam nit soo ko defalee aw yiw du la fàtte mukk tey xoolam day toj ngir fonk la ak bëgg la tahaadu tahaabbu waaye bu ñu ñëwee nag ci liy yàq ak bokk tënk ji tuuti rekk la ci jiitu mooy umpule la muy jur ci njaaxum tey ak ëllëg maanaam ñàkk xam am na ñoo xam ne dañoo woyafal seen bokk ngir ñàkk xam ñàkk xam ne soo ko woyafalee da lay jural merum yàlla da lay jural itam yàlla du la jokk da lay jural itam sa sa diggante ak say bokk yàqu te bu yàqoo day feeñ ci seen àdduna kumpa googu nag tax na ñu bari duñu jokk seenu bokk waaye am na ñoo xam ne xam nañu ko waaye dañu ragalul yàlla yàlla lu mu santaane ak lu mu tere seen yoon niw ca seen bakkan rek lañu topp kon nit dana xam li yàlla bañ te du ko bàyyi xam li mu bëgg te du ko jëf kooku ak bokkam du mën a rafet am na ci ñoo xam ne rëy moo tax ñu tàggoo ak seeni bokk ndax bu bu la yàlla manee gan nga yore ndombook tànk wala wërsëg am na ñoo xam ne dañuy defe ne ñoo gën seeni bokk dañuy daal di xeeb seeni bokk dootoo seeti kenn dootoo faale kenn te ku la seet si itam doo ko faale loolu nag bu yàggee rek ak bokk euh, nekkatu fa aw tura fa ne waaye nekkatu fa kon ak noo mën a toll nga wàcc ba tolloog say bokk te xam ne mën nga mën nga leen a génn waaye mënoo leen a gën gën moom ci taqawaa rek lañ koy defee kon nag nga wàcc ba tollook ñoom di leen dimbale ci ña nga ca tane euh, di leen jàppale dana def tax ak bokk mën a rafet bokk na ci lii yàq ak bokk mooy lu xew ci yow kenn du ko yëg te nit ñi moom lu ñu xewle wax la ko tey lu xew ci yaw kenn du ko yëg kon nag lu xew ci yow muy bànneex wala safaan nga wax ko say bokk ñu seddoo ko ak yow daana tax ak bokk war a tax daana tax mu rafet bokk na ci liy yàqaatam ak bokk mooy fecc ci kóllëre nit ngeen jaar barab jaar ci ay jaar-jaar nga fàtte démb loolu dana tax nit ñi ragal la dana tax bant bu gudd rek lañu lay laale bokk na ci li yàq ak bokk euh, lu kenn moomoon bëgg lum ca dolli mbooloo nag bëgg ko séddoo bëgg am kenn ku ne ci ñoom nag lu ko doy maanaam miraas laa bëgg a wax nit ku faatu bàyyi loo xam ne da wut lum ca dolli saa su xëyee mbooloo nag séq ko nag kenn ku ne bëgg caa am lu ko doy kon miraas yi nañ ci dellu si xel yi ñu ngi ciy dem ci yoon di yéeg ak a wàcc ak a jàppante ak a werante euh, te muy alal yi àdduna joo xam ne boroom da ko fay bàyyi wa minhu itaauka ahlal xaqi xuquqahum turan li wajhi lxaqi bu ñu ko defoon kenn ku ne ñu jox ko la mu moom kon ak bokk lu yàqu ak yeneen ak yeneen waaye nit koo xam ne kon dangay yàq ak bokk doo ko jokk doo ko rafetal kooka moom ana lu muy jur ana lu ci yàlla wax la jiitu mooy yàlla rëbb na ko ku ñaawal ak bokkam yàlla rëbb na ko fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladina laanahum allahu fa asammahum wa ama absaarahum kon koo xam ne danga dagg sag bokk ñaawal sag bokk sunu borom rëbb na ko sunu borom jéppi na ko ba ca tege moo di kuy dagg sag bokk sunu borom du ko nége ëllëg fii ci àdduna lay tàmbalee euh, duma yam ko dikk fii la koy tàmbalee ci àdduna yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam ma min danbin ajdaru an yuajjila allahu li saaxibihi bil uqubati fi dunya maa ma yuddaxaru yuddaxaru lahu fi alaaxirati min albaxyi wa qatiati rahim nee na bàkkaar boo xam ne sunu boroom du ko négee ëllëg fii la koy tàmbalee faj nee na dagg ak bokk ca la bokk te loolu kon lu ma a la bokk na ci li li muy jur la Moustapha waxoon alayhi salaatu wasalaam ne laa yadxulul jannata qaati'u rahim nee na kuy dagg ak bokk di ko ñaawal di ko xajamal du tàbbi àjjana loolu nag lu raglu la lu ñàng la lu daw yaram la koo xam ne da ngay sonn defe yaa ca nekk te coono bu du am njariñ lu raglu la lu mat a moytu la bokk na ci li tax ñu war koo moytu li mu waxaat moom Moustapha ne jëfi jaam yi dañu koy gaaral dañu koy gaaral jëfi jaam yi dañu koy gaaral sunu borom alti altine jone ak alxamis jone altine jone dañuy gaaral sunu borom jëfi jaam yi ak alxamis jone su ko defee mu ne jéggal naa ñépp topp kenn dara lu dul ku may bokkaale ak ku dagg ay ku dagg ak bokkam képp ku may bokkaale daal du ma ko jéggal féeg tuubul wéetal ma kuy dagg ak bokkam tam duma ko jéggal féeg jubawul ak ay bokkam moo tax mu ne utruku hazayin xataa yastaliha ñii daal bàyyi leen ba ñu juboo ma soog leen a jéggal moo tax waykat ba waxoon ne innal ma kullaha law xussilat rajaat bi jumlita bi jumlatiha ila shay'ayni taazimu amrillahi jalla jalaaluhu wa saayu fi islaahi zaatil bayni nee na daal lu baax ba baax fa baax yam mooy yaar yi képp fexe ba jubóog sa boroom fexe ba jubóog say bokk nee na ku am yaar yi am nga lu baax lépp te ñàkkoo dara kon nag nanu góorlu ci sunu bokk di ko rafetal di ko dox di ko wax Euh, te xam ne loolu la yàlla santaane moom la yonent bi santaane moom la ku baax ki santaane kon yàlla na ci yàlla dimbale te yàlla nañu ci bokk am ngërëmul yàlla ñun ñëpp di ziyaare nag ñëpp ku baax ki fi jógee di kilifa gu mag ci lislaam ak ci yoon wi te sunu borom moom ko noo ngi koy siyaare ñëpp di ko ziyaare nag kilifa gu mag gi mu Cheikh Sidil Muxtaar euh, yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana ya gën a kawe te fa mu jëm fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu nekkoon mu nekk fa maa nabiyina wa siddiqina wa shuhadaa wa saalihin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.